لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإيمان وإسلام إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى باخ باخ باخ di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen dénk dénk suñu bopp ragal yàlla te xam ne jikko ju rafet dafa bokk ci lu gën a màgg ci jikko yu gëm yàlla képp ku gëm yàlla ku la ëpp jikko ju rafet rek moo la gën a euh, gëm yàlla yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko wax ñi ëpp jikko ñi gën a ëpp jikko daal ñoo gën a mattal islaam iman suñu borom subhanahu wa taala nee na del jéggale del digle lu baax ñi nga xam ne xamuñu wala di jëflante ak yow jëflante bu xamul nga bañ leen topp ci liñ nekk usil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na man li tax ñu yónni ma dañ ma yónni rek ngir ma mot li jikkoy rafet day mel jikkoy rafet dëgg-dëgg euh, mboolem yi yàlla yónni woon amoon nañ ci ay cër yu mag a mag waaye yonent bi alayhi salaatu bi mu ñëwee moom koo matale sëkk sëkk sëkk loolu nag day tegtale ne diine ak jikko dañoo am rapport jikko nekkul fële diine nekk fee waaye dañoo bokk ku la ëpp la diine moo la ëpp jikko ku la ëpp ji eh, jikko moo la ëpp diine jikko ju rafet jikko ju rafet nag mbokk yi eh, am na nga ne yu bare bare bare bare yoo xam ne mënees na koo tax li tax importance bi buñ koy wax la ca njëkk mooy yàlla bi muy tàgg ab yonentam alayhi salaatu wasalaam tàggewu ko eh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam léppam lu ñu wan a tàggale lépp ji jëmm ji ndax Cheikhuna Cheikh Ahmadul Xadim nee na euh, euh, wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan zahara wal mislu xattu lam yura wa lam yura fi chiyam moo gën a mat ñëpp ci jikko ak ci ak bind waaye suñ borom bi mu koy tàgg da ko ne wa innaka la ala xuluqin azim jikko ju rafet da ko tàgge te mën na koo tàgge ci askan ndax askanam moo gën a rafet ci askan loolu ko tàggee ci taar lu julli gu bari waaye jikko ju rafet la ko tàggee kon loolu nga mooy ngëneel li jëkk ci liñ mën a xam ne jikko ju rafet bu am ngëneel la beneen bi mooy li ma ko waxee léegi yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ku la gën a mat gëm yàlla ku la gën a gëm yàlla moo la gën a rafet jikko akmalu naasi imaanan ahsanuhum xuluqaan nit ñi bu la gën a rafet jikko rek moo la gën a mat bokk na ci ngëneel yi jikko ju rafet day tax balance yowmal xiyaam diis képp koo xam ne dañuy peese sa balance teg ci ragal yàlla ak rafet jikko sa balance day day diis te xam na ne alaaxira ku fa yóbbu balance bu diis àjjana nga jëm amma man saqulat mawaazinuhu وهو في عيسة راضية beneen ngëneel bi mooy képp ku la gën a rafet jikko bu ëllëgee yonente bi alayhi salaatu salaam moom yow lay gën a bëgg bu ñaar àndee ki ci gën a rafet jikko na xam ne moom la yonente bi alayhi salaatu wasalaam gën a sopp waaye ëllëg yowmal xiyaam ku ne bëgg ngaa jege yonente bi alayhi salaatu salaam ndax fa mu nekk fa nit ñu baax ñëpp di nekk boo àndee kub sëriñ te sa jikko rafet mën nga koo jege moom it mu jege yonent bi alayhi salaatu wasalaam ku la gën a rafet jikko moo lay gën a jege ëllëg yow ma te amati yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax tey jii bu fi fekkoon ne ay millions ngi ñoo fi nekk wala ay millions ngi millions ngi ñu ne saal bi ku fiy dugg rek sa jikko day rafet yaakaar naa ne ku ne ci saal bi ñu naan da nga bëgg sax nga naan maa ko yonent bi dara doxu fa kon te loolu jikko ju rafet rek moo ko mën a moo ko mën a jox nit waaye jikko ju rafet it bokk na ci sabab yi dugal àjjana ndax àjjana kenn mënu faa duggee sa jëf waaye am nay sabab ay sabab ndax yàlla moom moom àjjana ku ko neex la ciy dugal waaye nag am na sabab yu tax mu dugal la ci min azami asbaabi duxulil janna jikko ju rafet bokk na ci ji gën a rafet Euh, maanaam sabab bi gën a màgg ci dugg àjjana ñu ma ko waxee léegi rek faqad suila nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an aksari maa yudxilu nnaas aljanna fa qaala taqwallahi wa xusnal xuluq yeneen bi dañ koo laaj ne ko lan moo gën a mën a gën a dugal nit ñi aljanna mu ne ragal yàlla ak jikko ju rafet jikko nag mooy jëflante am beneen mbir bu am solo xam nañ ne julli guddi taxaw di julli guddi di naafila guddi lu am daraja la di woor woori ngàtt nga itam lu am daraja la te yàlla lu mat di def la lu mat di def la euh, waaye nee na nit dana am ci jikko ji rafet loo xam ne dana àgg ci doon du ko def nga xam ne day julli farata rek tëdd am na ci nit fu muy àgg ci jikko ji rafet day mën a remplacer sax loolu day mel ni koo xam ne day dëkkee naafila ak di dëkkee julli te defu sax kon xam nañ jikko ju rafet lu am doole la waaye nag jikko ju rafet mbokk yi ki nit ki am ko ñun ñëpp dafa jar ñuy jihaad ak suñ bopp ndax dafa laaj effort waaw doo xëy rek ne man am naa jikko ju rafet nii ma mel baax na waaye dafa laaj effort effort bu nit kiy def ngir am jikko rafet Euh, ndax dafa am yoo xam ne liy wane ne jikko ju rafet dafa am ay jeexital day am ay jeexital ci euh, di feeñ ci làmmiñu nit ki lahu asaar la budda an tazhara ala lisaani al abdi wa jawaarixihi dafa am ay jeexital yoo xam ne faaw muy feeñ ci làmmiñu nit ki nit bu jikkoom rafetee su waxee jikko ju rafet da ciy feeñ waaye su jëfee itam jikko ju rafet dafay feeñ bokk na ci jeexital yi wane na nit ki jikkoom rafet na an yuhibba al mar'u li axihi ma yuhibbuhu li nafsihi li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa moroom kon loolu xam ngeen ne jar na nit ki jihaad ak boppam ndax yombul mooy li ma bëggal sama bopp bëggal naa ko ñëpp kenn ku ne xool sa bopp est-ce que yow li nga yeete sa bopp yéene nga ko ñëpp walla déet loolu moom effort la bu nit ki def ñeme boppam ba xam ndax mel na noonu wala melu ko bu ko melut mu góorgóorluwaat fexe ba man ko sëriñ bi moom bi muy yar li mu njëkk a def mooy dafa fexe ba laabal xol bi laabal xol bi yaru sëriñ bi day laabal sa xol ba nga yéene ñëpp jàmm booy def sellal ko woyof moo tax mu ne taxir ko min arrasaili wa xallihi bi afdali fadaili sa xol na nga ko laabal ci bépp bon bon waaye takkaayalu ko ci takkaay yu baax bokk na ci jeexit yi wane ne ci ki jikkoom rafet na day feeñ ci aw làmmiñam lu muy wax dëgg lay doon day dëggu ci boppam waaye dëggu ci ay waxam loolu bokk na as-sidqu fi l-xadiis min asaari xusni l-xuluq as-sidqu fi l-xadiis wal xaal bokk na ci li wane jikko ju rafet at-tawaadu wa laynul jaani mooy woyof xam yonent bi alayhi ne laa yadxulu janna man kaana law misqaalu zarra min al am ku ko ne waaw nit dafa bëgg ay yéeram rafet ay dàllam rafet mu ne ko allahu jamilun yuhibbul jamal yàlla ku ku rafet la te daa bëgg ko rafet ay ay yéeru yu rafet sañse ba waakaal loolu bokkut ak rëy rëy mooy xeebaat ko maanaam gis doomu aadama rek jàpp ne yaa ko gën loolu mooy rëy ak ñu wax la dëgg nanguwu sa xol bañ loolu mooy rëy muy xamtu naasi wa raddil xaq al kibr koo xam ne yor la ci dara nga xam ne yor nga ko nga jéem a defar sa bopp ba koo gis jàppal ne moo la moo la gën wala gënoo li tax mooy xamugoo nooy mujje falasta afdala axi min ahadi li jahli ma tasiru fii fii xadi gënu koo kenn ndax ëllëg xamoo nooy nooy mujj bokk na ci jikko ju rafet bañ a delloo ku la def du ñaaw nga bañ koo delloo du ñaaw ittaba billati hiya ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyyun hamim nit jikkoom ju rafet mooy même ku ko def du ñaaw mu bañ koo delloo du ñaaw waaw loolu bokk na ci li wane jikko ju rafet bokk na ci itam nit ki bu meree mu moom boppam laysa sadidu bi suraati wa innama sadidu man yamliku nafsahu inda algadab dégg jàmbaar du koo xulool gañe ko xeexal gañe ko koo xëccool nangu ko ci moom jàmbaar mooy moom sa bopp boo meree loolu la yonent bi kon loolu ay tomb la rek ne dañ ko indi woon ngir nit ku ne rek xoolaat ci boppam Euh, kon loolu la kon li ñu doon wax rek tënkaat tuuti ci français waxoon nañ ko sax au peuple craignez Allah et sachez que les bonnes manières et le bon représentent la moitié de la religion euh, quiconque progresse en bon comportement progresse dans l'islam grâce aux bonnes manières le croyant a le même rang que celui qui fait beaucoup de prières non obligatoires et celui qui jeûne volontairement Le jour du jugement dernier, les bonnes manières peseront lourd sur la balance et rapprocheront le fidèle du messager d'Allah. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-asyana waj'alna min ar-rashidin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب طول لنا عمرنا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله وكملا كل ما ننهو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله والتف بنا وقونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصليا على النبي وسلم واقض به حاجة كل المسلمين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون